ma si jàngee na trop sax. Mhm, mhm. bëri na trop xam naa waay waay indi ko nag. waaw xam nga meer baa nga waaye ma nay defar meer bi ba mu baax. <laughs> <laughs> waaw jërëjëf di la bëggee bu baax. allahumma amiin. allahumma amiin. am di bëggee suñ càmmeñ jooju doon kool saa su nekk rek dañoo bëggee képp koo xam ne yaa ngi seetaan Gambia radio and television services moo tax ma ne ñi nga xam ne dañ nekk seen liggéeyukaay yi sax fi mu nekk ni jaratul ngeen di yàkkamti di wàcce di dem ñibbi seen kër yi ndax mun ngeen ñoo am rek ci www.grts.gm www.grts.gm rek su ko defee rek di ngeen ñu am di ñu seetaan comme ku taar rek sa télé waaye nag li ma leen indiloon tey mooy li nga xam ne nii mooy meatball bi. bi nga xamee ne nag jënd nañ lii nga xam ne ni mooy yàppa bu wol bi nga xam ne ñu ngi ko jaay ci supermarket bi dal dinañ jënd tamit lii nga xam ne ni mooy laaj loria kaani kaani salade bi ak lii nga xam ne mooy poobar ma jëlagum kooku noonu ci laan bi suñ fi del see ñu jekkali tooga bi allo asalaamaaleykum allo hello hello asalaamaaleykum yaa booy yokkal nag foo ñoo Mariama Silva. Mariama Silva. Fajikunda. ana waa Fajikunda yëpp. ñu ngi ci maa ngi ñaanal mu ndox. waaw. toga mu toga nene. dëgg la. jërëjëf. jërëjëf Mariama nga nuyu ñu waa Fajikunda yëpp. di bëggee kooku noonu doon kool di Mariama Silva di bëggee waa Fajikunda yëpp waaye su ne Fajikunda naa fàttali ko ki nga xam ne mooy Aida Jeng Sonko eh, ki nga xam ne mooy Jàmbang Sonko di leen bëggee ñooñu ñooy chéri Malang Sonko yi saa su nekkal ma leen di bëggee bu baax a baax a baax ñoom ñu nekk foofu na ci Fajikunda waaye ni ma leen ko def faral di waxee rek mooy ne bi nga xamee ne nag ñëw nañ ci biir waañ bi da dinañ jël suñu laaj bu doy wal wol ko nag bem nooy nem ndax laaj naam li nga xam ne mooy laurier bi njëkka sax lay njëkka wol bi nga xam ne ni nekk na punda ci gënna bi waaye amaat na ku nekk ci line bi ñu jël kooku suñ fi jógee dinañ indiwaat programme bi tooga bi yëpp den ñu soog a ñëwaat allo asalaamaaleykum naam awa na def waaw mhm. <laughs> yàlla baax na waaw <laughs> alright <laughs> di bëggee kooku noonu doon call waaye di fàttali nit ñi képp koo xam ne bëgg naa tooga rek te mel ni mu ndaw si se oyof rek saa su nekk suñ la oyee rek nga jóg fàttewuma si tamit ki nga xam ne mooy jongoma njéeme jaañ saa yuñ ko rek dafa jóg waaye fan yi nag dégg naa ñu ne borom jëkkër waaye njéeme nag mere naa ko bu baax na koolu ma woon ma ne ma am naa jëkkër jongoma njéeme jaañ maa ngi laa ñaanal sëy bi yal nga toog bi am ci lépp li nga xam ne moom nga bëgga waaye ni ma leen ko faral di waxee rek ekkati leen tamit seen téléphone yi da ngeen koo ci 9933263 waaye dañoo delluwaat ñu wanaat leen tooga bi because nit ñi dañ dee bëgga xëy na léegi leen ñëw waaye balaa ñoo wane waa tooga bi damaa jël suma koola boobu ba pare ñu delluwaat ci tooga bi allo asalaamaaleykum am ah, dafa mel ni kooku noonu dem na waaye fi mu nekk nii li ma bugg rekk mooy suma technicien yi dinañ leen indi laataat tooga bi ñu dooree waat ko ci fi dooree ba fi ñu am ngeen seetaan tooga bi ne lañ seetaan tooga bi waat. laaj bi ñoom bi nga xam ne moom lañu walla muy ñaari doomi liñoŋ ñaari doomi liñoŋ yooyu noonu waaye ñu ne am na ku nekk ci line bi allo dem na ñu delluwaat ci tooga bi léegi chips bi ngeen gis ni fi mu nekk nii moom la ñoo seppi nag ndax liñ ci bugg yëpp am nañ ko moom gis ni ñuy seppi buñ ko seppee pare lii na mburu mu wow bi la moom ngeen gis ni ñu def nag boobu tamit suñ ko jëlee wol ko ci nokkos bi dal di jël furiñ bi tamit dal di ko ci jël moom itam wis ko ci dal di wol foriñ baa nekka nii suñ wolee lii yëpp nag ba pare dal di jël nen bi toj ko si waaye nen bi nag nañ bàyyi xel ne defuñ ci am yóbbu bi lii nag min smith bi la muy yàppa buñ bi moo nekka nii muy min smith bi moom ngeen gis ñu wol nag jaxase ko yépp lii nag soya soos bi la moom ngeen gis ni fi mu nekk nii ñu ngi cee def tabasco soos bi moom itamit mu nekk bu neex biñ ci jógee nag jël nañ ko moom itamit xal ko nokkos yëpp doole ko ci dal di xal suñ nen fi mu nekk nii nag ñu ngi koo jël nag di ko def ay balls waaw nen bi ngeen gis ni suñ paree dañ koo jël dugal ko ci li nga xam ne moom lañ wol muy yàppa bi mburu bu wow bi nokkos gi nga xam ne yëpp lañ ci wallandoor léegi nag balls yaa ngi nii waaye nag ngir yàlla bu duulin gi tàng bay saxaar na duulin gi ndax li nga fry mu mun a ñor ba ci biir waaw lii moom table bi la di fàttali nit ñi rek de wanaan nañ leen lii nga xam ne mooy tooga bi lii moom dressing bi la rek waaye li gën a important mooy liñoŋ bi lii moom sauce bi la rek lii moom eggu sax half poti diwlin mel na ni rek dañ jël rek half koota poti diwlin daal moom lañ jël nii rek tooga ko sauce bi di fàttali nit ñi ne mu ngeen di koore ci 4375 905 4375 905 mbitee 00220 4375 905 mbitee 00220 437 59 05 437 59 07 am di bëggee képp koo xam ne yaa ngi seetaan Gambia radio and television services si seen programme bi bakku bi seen xarit maam jeen toogal leen fi ñu dal di jël kooku noonu ci line bi allo hello am dafa mel ni kooku noonu dem na waaye ni ma leen ko waxee woon gisaat ngeen tooga bi mu nekk tooga boo xam ne tooga bu oyof la te it gis ngeen ne képp koo xam ne rek bëgg nga koo tooga rek xam naa ne moom jeeg ñi dinañ def ba mu baax ni ñoo defee ba mu baax mooy meatball lañ tooga te yàpp bu buñ wol bi mun ngaa dem ci supermarket bi dal di jënd ko foofu noonu soo ko jëndee ba pare dal di ñëw nag rek defar rek ba mu baax lii nga xam ne nii nag mooy meatball bi noonu rek lañ ko de defaree képp koo xam ne tamit mun nga koo wol mun ngaa dem jënd li nga xam ne mooy filet bi mu yàppi file bi boobu moo di gën a nooy ci nag xam na si yàppi nag nga jël ko moom itam walal ko sa bopp su nekkee am nga doole bi waaye benn tey bu nekkee amuloo doole bi rek mun ngaa dem nag ci bi dal di jënd rek ñëw defaral sa boppa benn tey ayut na duma leen ne tout à pare na na boobu moom gis naa ne foog la nga ñëw defaraat ko sa boppa waaye la ci gën a am solo rek mooy ne li nga xam ne moom la ñoo wol na wol nañ li nga xam ne mooy luuriya bu doy dal di wol li nga xam ne mooy laaj bu doy dal di wol nag li nga xam ne mooy kaane gu dija wol suñ jaba jambo dal di wol li nga xam ne mooy ñaari doomi li ñoŋ biñ waree loolu dal di ci sànni li nga xam ne nii tamit muy poobar buñ moka bi wol ko ba nga xam ne ne yëf yëpp ànd na nooy nem si gën a gi ñu dal di jël nag suñ ñetti kuddu mburu def ci mooy mburu bu wow bi dal di jël tam li nga xam ne mooy foriñ bi dal di ci def yooyu tam ñu wol ko yëpp ànda ba ànda yëpp ànda yëpp maasaloo ci biir gën a gi di jël nag suñ ñaari nen moom itam toj def ci dal di jël nag li nga xam ne mooy suñ main smith bi di yàppa buñ wol bi moom itam jël dal di ko jël na di ko tuj tujal yëpp ci gën a gi bi nga xam ne yëf yëpp ànd ndoor fekk nag yaa ngi jël li nga xam ne ni mooy sa nen xaw nga ko ba mu ñor xolli ko teg ba pare na bu nekk benn benn rek ngaa jël di dugal ci biir yàppa bi dal di ko móol ba nga xam ne ni li ci bugg yëpp am nga ko si su ko defee nag nga jël rek fry waaye bu diwlin bi tànga waaye di fàttali ni ñu ne yéen a ngi sitaan lii nga xam ne mooy Gambia radio and television services di seen programme yi bakku bi seen xarit maam Jeen toogal leen fi li di gis nii nag fi mu nii mooy ginna bi li nga xam ne moom la ñoo wol fi mu nekk li nga xam ne mooy li ñoo ngi soose bi di jaba jambo bi moom moom la ñoo wol suñ fa jógee nag dinay wol li nga xam ne nii mooy poobar bi moom ngeen gis ni poobar bi tamit moom lañ gis nii ngeen gis nii ñu ngi koo wol chips bi ngeen gis nii tamit ñu ngi koo fry waaye di leen fàttali ne képp koo xam ne bugg naa fry chips rek na nga bàyyi sa xel mu nga jël li nga xam ne nii mooy vinaigre ak li nga xam ne nii mooy ndox bi jaxase ko def ci xorom tu ndox boobu noonu soo paree nga jël furiñ wis ko si chips bi di nga gis ne daf soo ko yëy dafa dafa xala lii ma dal di jël kooku noonu ci laan bi hello asalaamaaleykum allo aha naam jaama jërëjëf allo dama ne kooku noonu dafa dem waaye maa ngi ko waxaane rek mun naa koolaa su ko defee rek ñu gën a waxtaan moom waaye nit ñi maa ngi leen di bëggee bu baax a baax a baax sas nekk wax naa leen ne réewi Gambie jéegi Gambie kenn mu dara loolu leen dama tëdd tuba fakala macha allah rek li def ba baax ni ñoo defee ba mu baax rek dafa am solo wax naa leen ne waañ bi tàng na tàng